salaamun minallaahi aleykum wa rahmatuhu wa barakaatuhu seen naafila numéro 5 guddik juróomeel gi ci weeru koor sopp nañ ko ci julli ñeenti rakka rakka bu ci nekk nga jàng faatiha benn yoon jàng alam nasrah ak xul huwallaahu ahad lu ci nekk ñetti yoon mel na ni ku xaj junni yoon umra junni yoon te dees na ko musal ci ak ñàkk te dees na dolli wërsëgam te xaraf wu ci nekk dees na ko ca bindal ñaari malaayika ñuy fayar ay ñaawteefam di ko bindal ay yiw ba bis ba di dellusi si te dees na ko yëkkatil ay darajaam te fu mu jaar dina am ngërëmulu borom bi subhanahu wa taala ku ne xam na ne nag dugg aljana moo jafe moo yomb mais ngërëm dafa jafe ridallahi ku nekk bëgg na ko te yàlla na borom bi subhanahu wa taala defal ñu ko mbokk yi ku ci bëgg yeneen i leeral da ngay dellu ci xurratu ayni bu Serigne bu Mbacké page 142